muy Mamito Nakamura donc euh, nekk réalisatrice donc sànq wax nga ko ci ñetti film yooyu nga xam ne réalise euh, def na ko donc bu ci mujj la ñuy def parce que wax nga fi mais boo seetloo ci ñett yooyu muy benn bi mu ne un combat qui traite le sujet du maintien des filles à l'école et des mariages précoces donc dangay ngay sentir ne jigéen moo ci nekk jigéen la ciy waxal jigéen la ciy kaasal beneen bi aussi mu ngi wax euh, beneen film Dame Nature donc qui qui traite le thème de l'environnement donc mm. boobu aussi Euh, mu ngi mu ngi ba mu ngi jël ci jigéen ba tey di ci bàyyi xel bu baax a baax mais bi ci gën a am solo te mu nekk récent bi nga xam ne tey mu ngi ci nekk di def promo bi di ko lawal fu nekk di ci waaj ay tournée yu bëgg bëri di ci sensibiliser nit ñi. Mm. mooy au nom du sang. donc au nom du sang donc qui traite le viol et la prise. en charge post-traumatique des survivantes de violences sexuelles. C'est ça. donc au nom du sang sang bi mu defee ko SANG donc ci turu dret c'est ça que. que loolu lay loolu lay tekki donc Mamito lan moo la lan moo lay yëngal lan moo lay as lan moo lay yëngal lan moo lay xabtal ba yow quand booy wax rek bon ci jigéen ngay wax te booy wax da nga koy kaasal lu ci bëree bëri bëri bëri ndax dafa am ay histoire yooyu dund yu ñu lay raconter donc fan la histoire yooyu jógee wala fan la thème yooyu di jógee. Mhm. merci beaucoup Dame. Mmh, déjà merci ci invitation bi. Mm, kontaan naa trop ñëw fii ce matin. Mmh. alors euh, loolu yëpp boo ko gisee dafa am lu ko lu ko jiitu lu ñu naan la ko lu yëngu la ko yëngal ak ëpp doole. Mhm. Euh, dama di lu ñu naan militante féministe. Mhm. maanaam dama engagé wu pour cause boo xamante ne nii c'est pour servir les femmes et les filles de communauté. Mhm. donc loolu ci lu may liggéey lu bëri ci laa koy jëlee comme man nag duma avocate duma juriste duma duma milliardaire buy buy dugal ay millions ci biir xeex bi artiste je suis réalisatrice je fais du cinéma. Mhm. donc sama art laay utiliser moom laay jëfandikoo pour mën a véiculer samay message yi nga xamante ne nii dama koy jëmee ci sama ci samay samay ñoñ. Mhm. muy jigéen ñi ak xale yu jigéen yi ci biir société sénégalaise. mu nekk lu am solo ñu gis ne cinéma comme ni nga ko waxee dafa nekk loo bëgg lool ba tarbiyewu ci mais gis nañ monde cinéma actuellement gis nañ ay réalisatrices yu bëri yoo xam ne ñu ngi ci mais yow da nga jaar beneen voie euh, bon naka la yow ndax yow yaa mm. bëgg ci côté boobu rek tu parles des mm. femmes des violences tu parles de euh, métier beeg yooyu noonu pas que pas que xëy na mm-hmm. pour l'instant que mm-hmm. je me dis que ni comme engagement bu ma jël la bu ma kenn forcé wul mm-hmm. maa ko jëlal sama bopp donc ma ma ma jaar ci li may liggéey pour véhiculer yenn message yi mais y a pas que ça parce que peut-être sama premier deuxième ba troisième court métrage bi ça traite toujours de thèmes autour de la femme autour de la fille mais euh, Dame Nature par exemple ça parle de l'environnement et peut-être yeneen ak yeneen itam ñu ngi ñëw yoo xamante ne nii euh, aw ma je m'enferme pas ci benn néeg wala ci ci ci ci ci benn ci benn ruq awma limite je rentre pas dans le moule <laughs> comme on dit souvent mm-hmm. j'aime bien sortir un peu des sentiers def loo xamante ni déjà sama sensation la mm-hmm. lu ma yëg ba pare mm-hmm. avant ma koy transmettre donc engagement bi c'est normal que ma commencé ci peut-être dem ci avancer ci parce que je suis euh, militante comme ni ma ko waxee sànq. Mm. mais ça ne veut pas pour autant dire que ci lay bloqué wu euh, bañ a traité yeneen sujet ñu ngi en écriture d' autres sujets. Mm-hmm. mais quand à chaque fois jigéen dina ci am wàll quand am na solo donc mu nekk lu am solo donc surtout bi nga mujje wax muy euh, bi nga mujj def muy. au sang au nom du sang. Mm. donc ci nga def ko ci ban contexte. donc ci naka nga koy kiiyee. Mm-hmm. alors au nom du sang histoire la boo xamante ne nii dafay xew boo gisee ñu ne sang bi deret bi. Mm-hmm. dafa dajale ñetti deret. ñu ne c'est une histoire de viol qui se passe dans une famille polygame mhm. le jour de la tabaski donc benn histoire u siif la xale bu jigéen bu ñu siif donc deretu siif mhm. ci biir famille polygame mooy deretu mbokk parce que kii ko siif ko papaam la oh. le jour de la tabaski ak sacrifice su xar bi donc c'est ce qui fait que ça fait trois cents c'est un film qui gore j'avoue mais cent la ku mu bokk rakk baayam ñoo bokk deret ñoo bokk deret mu tombeeg jouru tabaski ñuy rey xar. exactement donc ñu veillé ko. ak deret ji mu tuur ci xale bu jigéen bu mu bu mu mu siif. Mhm. donc loolu yëpp bu ñu ko boolee. Mhm. moo tax ma tudde film bi au nom du sang boo gisee affiche bi nii lay def day mhm. waat. d'habitude voilà exactement. bu ñuy waat dañuy yëkkati loxo nangam billaay wala nangam nii lañuy ñuy waatee. donc moo tax ñu utiliser baaraam bi. du beneen baaraam bi bii la <laughs> pour voilà bii la donc euh, ñu utiliser baaraam boobu noonu ak deret ju ciy wal mm-hmm, mm-hmm. bu wane ni dañuy waat li ñuy waat dañ koy teg ci biir ci ci ci deret donc mm-hmm. mu ñetti deret yooyu ñu dajale de film bi au nom du sang pour quand même euh, xaw euh, a choqué on va dire xawuñu sax choqué dañu choqué parce que de c'est de d'utiliser benn angle choc pour pouvoir euh, ku ñu maas xam nga da ngay tëb donc l'idée mooy maas boobu noonu parce que sensibiliser nañu Euh, fecc nañu woy nañu tëgg nañu sabar nañu am na ay loi am na yëpp mais ba léegi se ñu ngi continuer di enregistrer ay cas de violence sexuelle ci biir Sénégal tout au long de l'année mm -hmm. donc l'idée pour moi c'était de choquer mhm. pour dire il faut que ñu wax mhm. wax mooy choquer yaay yi choquer papa yi. dénoncer aussi sorti exactement. Mm -hmm. inciter les les parents non seulement à ce que ñu gën a xool seen njaboot. Mhm. seen ay transformation yaram ak yëpp. mais aussi à ce que ñu leen di ubbil buntu yi pour que ñuy ñeme. di waxtaan ak ñoom. Mhm. xale du nettali ah xale day nettali kay. Mhm. xale na tàmm nettali parce que bu tàmmee nettali lu ko dal ci mbedd mi bu dikkee dina am sañ-sañu dina am fitu nettali la ko. Mhm. mais boo ko tàmmalee bëreet nga ni ko xale du nettali. dina ëllëg peut-être mu ragal. ñëw wax la lu mu dund ci école ba wala lu mu dund ci mbedd ma parce que les violences sexuelles c'est pas qu'à la c'est dans la rue le harcèlement de rue c'est dans c'est à l'école ci daara yi gis nañ fi yàggul dara ay xale yu jigéen yu ñu siif yu bëri ci ci ay daara amatuñu benn espace boo xamante ne ni on se sent en sécurité moo tax ñuy def ce genre d'œuvre pour pouvoir demander aux parents wax leen ni leen hey il est temps ngeen way wattu lañ koy wax defe naa wattu gën a wattu ibbi seen bët ibbi seen bët di gën a xool seen njaboot gi parce que am ñu xale bu jigéen bi ni bi ñu ko siifee bu yaay ji xawoon a xippi ay bëtam tuuti mhm. dina gis ni doom ji am na ay transformation ci yaramam mhm. mais dañ ne ah est-ce que du règle yi la kii ni ah est-ce que du nàngam la banaliser boobu ñu ñu ko banaliser ñu ko gënoon jox tuuti gëdd yàlla mën na def xëy na dinañu teel a xam ni kii am na lu ko dal laaj ko mu nettali ñu jël ki ko xamante ne ni moo ko def loolu ñu teg ko ci yoon parce que yoon may nañu quand même criminaliser le viol et bu ko bu ko defee ñu sanction s'ensuit beaucoup de d'obstacles dans ces genres d'univers en Sénégal ñu bëri l'obstacle moi je pense l'ennemi numéro un des cas de viol dans les familles sénégalaises à l'intérieur même c'est sutura sutura bi nëpp nëppal parce ça, que ñu ngi koy wax parce que affaire nan la ma sama waa koñ bi di xoolee. Mhm. affaire affaire affaire nan laa koy tuddee. orgueil wala nga wala nga orgueil wala rëy wala wala bañ gàcce. wala wala ba léegi tas famille déclaré nañ ma fi yàggul dara benn cas boo xamante ni xale bu jigéen bi yaay gi dañu ko dangay ngay nga bëgg a tas sama sëy. waaw mhm. gën a maanaam man sama doom ñu siif ko ñu sàkk ko ma bañ ko gëm ni ko parce que da nga bëgg a tas sama sëy. Mhm. donc bu ñu demee ba sëy. sa sëy di la gënal sa njaboot gi nga jur. y' problème mais loolu yëpp li ko waral mooy que ni dañu nekk ci société boo xamante ni daf ñuy tout le temps jugé. Mhm. daf ñuy tout le temps incriminé. dañuy tout le temps euh, dafay am ay représailles à chaque fois même yow mi ñu siif nga am métit ak yëpp parce que métitu siif du du deñ au bout de un an cinq ans dix ans du lay topp sa giiru dund la. imagine ñu ni délai de prescription bi cinq ans la. tey jii diggante cinq ans yi peut-être sax xaw nga tane tuuti. Mhm. cinq ans avant cinq yi ñu déclenché waat affaire bi day day déclenché waat automatiquement traumatisme bi du luy denc ci cinq ans dix ans vingt ans trente ans. da lay topp sa giiru dundu da lay topp et puis c'est à hmm? noter parce que exactement xoolee ñu ci bëri euh, lu mel noonu bu leen dalee euh, comme li nga def moo leen ciy génne duñ ko wax mais dañ koy dund mu leen di ngacc ci seen biir. exactement leen di métti. ñuy comportoo neneen noo xam ne danga naan kii lan moo tax mu mel nii mhm. fekk au fond d'elle am na lu ko métti loo xam ne munu ko munu ko wax mhm. mooy li ngay wax il faut que les parents mën a laaj seeni doom parce que du xale du nettali mais dañ kumpa ci njaboot dafa am solo maanaam di leen yurundu pour comprendre ce qui se passe mhm. te bi nga defee loolu yaakaar naa ne am na ñeneen ñu defaat parce que yéen a ngi ci yéen a ngi ci promo livre euh, li nga xam ne mooy film bi. Mm-hmm. pour que ñëpp jot information mais bi mu jot bi nga ci jot a commencé def donc ndax am nga ay retours yoo xam ne dañ naan man dund naa lii de sénégalais yoo xam ne témoin di la di di gën a dëggal yow sa wax. Sénégal dañu am toujours li ñuy naan li Pape Sidi wax léegi. Mm-hmm. sutura gi ak nëpp nëppal gi. Mm-hmm. parce que ku ne yaakaar nga ni boo fësalee sa sa sa siif wala sa viol. Euh, dañu lay xoole bëtu nangam nga loo fa wuti woon loo fa defu woon loo soloon nangam sàngam mhm. bi ñu defee projection bi Burkina Faso dans le cadre du festival euh, Waga euh, Côté Court di ci profité di nuyu Tata Irène Tassambedo mhm. euh, projection bi limite dëj la mujj limite comme dëj mhm. nit si dañu doon jooyantoo jooyo jooyo yoo xam ne mais bu ñu paree am na nañu peut-être ay quelques filles yoo xam ne jug nañu raconter seen viol pour la première fois ba am na ci benn cas boo xam ne les associations féministes doo waaga ñu ngi koy suivre parce que délai de prescription bi jeexagul donc ay occasion la yoo xamante ne nii dañuy essayer libérer la parole mhm. ci mmh. hors du Sénégal c'est plus facile mais Sénégal ba léegi y toujours ce côté nëpp nëppal bi mhm. su ma ko waxee et puis ça comprend su ma ko waxee nan lañ may gisee samay mbokk tey jii man su ma toogoon fii déclaré ouvertement sama viol am naa doom bu jigéen am naa mbokk am naa nangam day law day cest kii ñoo bëri nu mu tuddee ci obstacle yi ñoo mm-hmm. bëri ba nga xamante ni ni mm-hmm. dénoncé bi day dañ koy dañ koy préféré li ci am mooy gis nga gis nga kii nëpp nëppal kooku c'est pas la personne concernée gis nga kii feebar bi dal mooy ki ñu violé la mu ngi mel ni tey euh, boo laaloon benn benn mineur maanaam mbëkk ko gaañ ko soo demee ñu yow dañ naan la kii mënagul baal boppam uh-huh. mënagul jël responsabilité boppam ne la baal naa la uh-huh. il faut que nitam magam papam yaayam tutoram ñëw ne la baal na la boo légee ñu mën ko topp ne moom moo la baaloon mais mënu ko sa à dire il faut que ñoom mag ñi ñu jël seen responsabilité xam ne kii li ko métti pour ñu faj loolu uh-huh. man maa war a mën a jël responsabilité ne la wax ma li la métti parce loolu day dem te dalay dalay dalay dalay dalay gaañ te du ñoom ñoo ñooy chaque instant yow yaa ngi xalaat ne man defoon nañ ma lii nit kooku mu ngi traversé chaque jour sa wet mm-hmm, mm-hmm. mbokkam ñu ngi traversé chaque jour sa moom mu ngi dund dundam di avancé yow yaa ngi dund sa dund di gën a dee di gën a jeex di gën a sonn loolu di gën a nekk sa bopp bi loolu bu ñu la laajul fexe ba génnee sëkkal boobu nekk ci yow mm-hmm. fexe ba génnee mbir moom di la di la tant que waxoo ko du du dem donc il faut que les parents bon mbokk am na parce que c'est la société sénégalaise saa su ne dañuy wax ne bon ñoo ko bokk mais dafa am foo xam ne bu fa yenn yi tollee ak àdduna nu mu demee donc faaw ñuy wax di dénoncer saaba veut pas nga fësal àdduna bi yëpp xam mm-hmm. mais faaw ñu dénoncer ko ba nit ki yow nga mën ko récupérer parce que mm-hmm. nit ki parfois bu yooyu amee day mel ni day day réer te bu denasewul kenn du ko kenn du ko doguma la daam damay reprendre quelques mots yu selli waxoon la dernière fois vendredi bi ñuy def avant première bi Douta Seck parce que à chaque fois bu ñu projeté dañ ciy toftal benn panel mm-hmm. boo xam ni day wax ci wàllum prise en charge post-traumatique maanaam nan la ñuy saytoo wala nan la ñuy euh, gunge ki nga xamante ni nii dund na traumatisme bu mel noonu ci biir société bi ak aussi ci wàllu loi mm-hmm. di ci ànd ak AGS ak aussi yenn professionnel de la santé mentale selli mu ni dañu nekk société boo xam dañu Euh, euh, maanaam mbooloo dañuy on préfère prendre soin du, du groupe que de se prendre soin soi mm-hmm. mooy benn bopp lañu benn nangam lañu yooyu yëpp c'est très bien mm-hmm. mais on pense plus groupe que yow donc bu fekkente ni man li ma dal su ma ko waxee suñu ànd bi tas dama koy téye mm-hmm. parce que loolu lañ ñu tàggate c'est l'humain qui est comme ça exactement on a toujours été donc il faut que ñu ñu ñuy ñuy bàyyi nit yi ñuy xalaat seen bopp. Mhm. ba pare c'est de l'égoïsme positif pour man du du ne da ngay beddi groupe bi wala du ne da nga bëgg a tas groupe bi mais sax wér gu yaramu bopp sa mhm. xel mu dalu bopp dafa am solo ci sa épanouissement jigéenu euh, euh, euh, viol ñi ngi koy wax ci film bi on parle certes des jeunes filles mais il y a ce le viol conjugal mhm. sa soxna bi la nga takk mu lew la ci farata yàlla ak sunu Muhammad comme ni ñu koy waxee mën nga ko violer parce que bu la nee peut-être bëgguma tey wala nekkuma ci condition yi tey wala sama nangam tey nga force ko ànd ak moom viol lañ koy tuddee selon les textes musiba la loolu moom musiba la musiba la te eh, loolu moom yéen laay wax sax musiba la non non dëgg ma la wax si kii ay caaxaan la dëgg ma la wax du ay caaxaan imagine non dama lay wax rek c'est inscrit dans la loi waaw bu la sa jabar porter plainte pour cas de viol non bul ñëw ba ci plant bi avant plainte bi am na lu ko jiit lu ko jiitu tey jii mi ngi nii nga am sa soxna waaw sa soxna la yéen a ngi sëy am ngeen sax peut ñaar ñetti doom seen sëy ngeen depuis quinze ans vingt ans mais ku leen ni tey jii mënuma parce que du ma dugg ci côté lislaam parce que mm-hmm. maîtriser wu ma ko bu baax mm-hmm. mais li ma xam laay wax mooy que ni tey jii ku leen ni mënuma mënuma c'est pas parce que bugguma wa même su leen bugguma sax da nga ko war a da ci war a ànd ak moom mm-hmm. parce que yow man nga xëy ñëw bés doo nekk ci sente doo nekk ci condition yooyu yaa ngi wala am nga bor yoo fayagul mm. wala sa liggéey nangam ak sàngam moom mu nangul la loolu stress boobu nangul la loolu parce que xëy na sax amaana bu ngeen stressé du du demee na mu war a demee mm. yaa ngi dégg donc ñu nangu loolu mais xam nga am na gën ci laxas <laughs> xam ne dañ naan la waxoon naa la jox ma ma nat jëndaloo ma or joxoo ma ma gën a bëri nag c'est lu ci bëri mais mm. xam nga lislaam ñaari mbir la dàq ci sëy diggante góor ak jigéen ñaari mbir mbërëg bul ci ànd ak sa soxna même boo bëggee maanaam bu nekkee ci ay période règle beneen bi des mooy période euh, meret bu wasinee ba. wasinee ba ak bi mujj mooy defe naa bu wooree. Mhm. ñett yooyu bu wooree. mais leneen li ci des yëpp. danaan la négocier boo mënul am. wax dëgg yàlla nag sa soxna amul droit. non boo mënul am baal mu sedd. non non léegi loolu moom xam mu sedd la euh, jàpp ne affaire cas de viol. Mhm. ce qui ne sert pas au propos de la femme sénégalaise. Mhm. le nëpp nëppal c'est l'ennemi numéro un mais mi numéro deux c'est la banalisation du viol Tout à fait. dans l'espace public aujourd'hui j'ai vu un, une petite guéguerre qui existe entre Nabou Dash ak quelques sëriñ daara yu jàpp ne sous prétexte que dafa dénoncer benn sëriñ daara wala mu am nu mu waxee mu globaliser yeneen sëriñ daara mhm. sëriñ daara yi porté ko plainte bu amatee yeneen cas yu mel noonu nit ñi dañuy ragal a jóg wax léegi bu amee yenn cas yoo xam ne politiciens yi dañ ko jël ñu def ko arme seen biir. Hmm. opposition bi di ko jiiñ euh, euh, pouvoir bi pouvoir bi di ko jiiñ opposition bi dafay dem ba nit ñi dañuy dem ba viol après bu dalee nit nit ñi dañ naan ay eh, jugal fii waay. Hmm. fekk ne kooku mu ngi dund peut-être lu tar si xolam. là où je veux en venir mooy y a aussi yoo xam ne dañuy def affaire bandi ñu bëri ñu ngi croupir ci jeel bi. Hmm. defuñ dara. seen gel lañ see xal après gel bi découvrir ne ganeen bi da doon doxaan mm. ñu yuuxu tapek scandale jiñ ko viol dem indi ay preuve mm-hmm. euh, ne def ma dafa yàgg sama kaw fekk nag ils étaient consentants au départ mais mm. l'homme n'a pas de Euh, de moins de nga ñu indi ay preuves. waaw fu preuve yi di jógee. maanaam bu ñu bu ñu defee rapport sexuel. ma non danga ne bu ñu parce que preuve de viol pour man preuve de viol la. Mm-hmm. donc man militante bi ma doon ak engagement bi ma jël pour servir sama communauté. aw mu droit di di euh, laam-laamee kàddu jigéen bu taxaw ni dañ ko violé mhm. man bale bëreet dama lay gëm ba pare bala ñuy dem ci am naam amul dama lay gëm nangul la parce que xam li ci traumatisme bu mel noonu donc yaa yaa ya am na am na ay mécanismes yoo xamante ni bu ñu ko mettre en place rek dinañu mën a déggoo ci yenn débat yi mm-hmm. malheureusement yenn événement yi ça ne sert par la cause ça ne sert pas les survivantes mm-hmm. gisoo léegi waxatuñu sax victime dañu naan survivante parce que euh, euh, lu ñu criminal li Ami Sakho bu AJS di wax bu bu lu ñu criminaliser mooy rey nit donc soo violé nit mooy da nga rey nit maanaam kooku après bu jéemee jug di dundaat day jéem a dund mais dootul dund enfin xaw ma nu ma ko mën a expliquer. ci wala muy muy muy lu am survivance elle devient une survivante en fait. Mm-hmm. dundatul mm-hmm. day jéem a continuer di dund di garder lu bëri après nga am doom mu nekk beneen trauma boo xam da nga koy mm-hmm. yebbe ci sa doom bu jigéen danga nga koy. laaj yenn laaj yoo xam sax des fois tam nga choqué ko. doom bu jigéen su ma déggee viol sama fit bi danaan tëf. mi ngi noonu dama yërëm jigéen ñi mais bu amee ay yow mamitoo xam nga lu baax li ma lay wax am na jigéen ñoo xam ne ay saay-saay lañ dañuy ñëw ay yi fépp la. maanaam góor ñi bëri na ay ay tonton saay saay ak ay ñoo xam ne ay wëyu lañ dañuy sàkku. Mm. dañuy siif dañuy yegg ci kaw jigéen te d'accord. Mm. loolu baaxul mais am na ci jigéen ñoo xam ne it des fois ñu tuumaal gor. te du am benn fu mu mën a teggee tuumaam. Mm-hmm. ñooñu it li ñuy def baaxul. Mm-hmm. mais li ma ni moo servirul cause bi mooy nit ñi ragal bu ñuy ragal a wax. Mm-hmm. surtout bu nekkee si yenn point yu sensible yi. tout ak ñi nga xam ne dañuy jël viole def ko arme de guerre ba muy banaliser wu loolu ci société bi moi je me dis que toutes les femmes qui subissent un viol dans le monde dañ leen a war a jël déglu leen toppatoo leen psychologiquement mhm. ñi def loolu ñu teg leen ay daan yoo xam ne mhm. ilal ëbët dootuñu xalaatati def lu mel mhm. noonu mais s'il y a trop de choses qui arrivent en même temps dans la société doo xam noo koy gérer da ngay gis koo xam ne am na benn bu kan lañ fi invité woon une dame qui parlait euh, mu ñëw ministère de de la femme mu ñuy raconter ay histoire bi ñu paree on a eu un témoignage mu ne am na benn suñu benn koñ benn gaynde day dóor jabar ji day màndi bu guddi day dóor jabar ji suba ngoon guddeeg bëccëg da koy violenter matin midi soir des fois mu ñàkk xaalis sax dem poker wala genre affaire yooyu ne day teg jabaram jabar ji bañ mu dóor ko ba mu bëgg a dee léegi boo demee ne da ngay jéem a wallu ñu ne la yéen da ngeen a saytaane génn mm-hmm. leen ci vous êtes des poucaves et tu sais mm-hmm. ça ça mm-hmm. veut dire quoi dans dans dans dans dans tout nos banlieues toutes ces choses là c'est difficile que les gens ce que les gens vivent ci suuf ci sutura loolu aussi dafay indi problème il faut mettre à nu mais des fois boo mettre à nu ba xale yu jigéen yi nga xam ne ñun li ñuy déclarer rek ci cas de de violence parce que viol xëy na moo ci gën a métti moo ci gën a siiw li nga wax léegi xam nga ni ku jël sa jabar bu ko teg ci poker kooku tegoo ko nit parce que poker xaalis nga fay teg wala leneen ak leneen xam nga loolu noonu ku koy def xam nga ni loolu beneen niveau la beneen niveau de violence la mhm. parce que kooku même bu fekkee nanguwu ko sax dans a tête dañ ko doon utiliser pour teg ko poker mhm. cest à am na lu muy sax mën a wàññi lu bëri ci moom gis nga gis nga militante yi nga xamante ne ni dañu jug ni bàyyi seen lu bëri jël seen temps di ko def ci biir xeexal ak ak yelleefu jigéen fii ci Sénégal muy activiste yi muy militante féministe yi muy ñu nekk ci association de femmes yi muy bàjjanu gox yi muy relais communautaire yi boutique juridique là mm, boutique de eh droit yu AJS yi tu vois déjà ñoom la ñuy ñoom la ñuy àndal ci ci ci wàllu tournée bi donc ñooñu ñëpp c'est des yoo xamante ni nii euh, ku ci nekk la mu dajale ca la mu toog bu la ko jugoon wax tey ci nga ne ko nooy def bay xëy di dund wala ngay xëy di continuer di liggéey parce que tout simplement yu ci bëri amoo arme yi war pour nga dem xeexi ko mhm. dañ lay dénoncer ma ñëw laaj Pape Sidi jox ma foofu nàngam amoo foofu xamoo foofu benn avocat wala daam xamoo foofu benn nàngam ñu kolo kolo jëm la ci génne wala yooyu donc ñu poser aussi question wu prise en charge bi par rapport ak état ak les structures yoo xamante ni war na mën a exister pour que tey jii bu nee diw dañ ko siif bu wootee numéro bi ñu koy jox kenn du ko laaj loo soloon mm-hmm. wala loo fa doon def dina déggoo ak professionnel boo xam ne dina ko dalal dalal ko déjà ba mu dal accompagner ko bu paree ñu ni soxla na avocat soxla na médecin soxla na nii c'est-à-dire circuit boobu noonu ñu jëm ko mettre en place ba nga xam ne tey jii bu loolu amatee ku ci nekk xam nga ni boo jógee point A di nga jëm point Z. Mm-hmm. te ñu nekk ci diggante bi ñëpp dinañu la déglu duñu la juger parce que kenn fekkewul ba muy xew yow mi wax ñu gëm sa kàddu d'abord avant que ñuy dem ci li nga xamante ne nii moom la yoon maye. Mhm. muy lu am solo muy lu am solo alaaji xam naa ci loolu la ñuy kiiyee parce que déjà parce que il a parlé de quelque chose de très important balaa ñuy dem feneen mais sànq sànq environnement bi aussi dañ ciy ñëw mais sànq yow daf ne la mhm. euh, violence faite aux femmes bu fekkee sa soxna da nga ko soxla nga ne mhm. diina lii la sant mais diina santu la sa soxna bu demoon ba bañ wala ba munu ko nga forcer ko loolu ci moom la forcé baaxul moom waaw forcé baaxul léegi ñoom forcé boobu ñoom moom la ñuy xeex cest di dire nit même bu la diine waxee lii bu la nit waxee du ñoom ñoo koy xeex de y a une loi qui pour ouais, gérer ça waaw c'est ça consentement lañ koy tuddee tey soo demee sa jabar bu la porter plainte pour viol dañ lay tëj de waaw parce que waroo ko forcer <laughs> parce que gis nga consentement bi mooy sama waaw njaga waaw sama waaw njaga <laughs> nama kura bàyyi njaga <laughs> léegi léegi ci ci ci loolu ci loolu ci loolu da ngeen ci da ngeen ci da dangeen ci da ngeen ci xaar benn tournée pour gën a sensibiliser wala. loolu la ñu bëgg mais avec le film c' est. loolu la ñu bëgg y' a pas beaucoup plus percutant aujourd'hui que de passer par les films. Exactement. pour pouvoir sensibiliser les gens mais bi dafa am fu muy jaar pour ñu pour ñooñu tamit jot ci. xam nga film bi dañu si ànd ak Ndiaye Siré Ba mhm. mu nekkoon Jalika ci maîtresse d'un homme marié mhm. sama rakk maa ngi koy nuyu bu baax mhm. maman Ndeye Coumba ñu naan ko ma Pis sama xarit la Ajara Fall mu ay nit yoo xam ne Sénégal dañuy identifié wu ci Pape Sidi ci Dame ci X ci Y dañuy identifié wu ci ñoom parce que dañ leen di bëgg di leen topp li nga naan yow rek laay topp pour man du lu banaal donc bu ñu nee euh, Jalika rek laay topp bëgg dañuy xool a l'écran comment elle se wala nan lay mënee yenn engagement yi am na xale yu jigéen yoo xam ne dañ ko faa ba dañuy bëgg niroog moom bu baax aussi voilà elle est naturelle euh, gis nañ aussi ay messages ah solo donc c'est une femme qui est très engagée et que li tax ñu mu mu gën a joxe lu lu lu raw rôle am mhm. mooy que ni peut-être am na des millions de xale yu jigéen yoo xam ne bu ñu gisee Jalika di joxe benn message moom la ñuy gën a déglu que que que ministre de la femme par exemple donc idée bi mooy que ni ministre de la femme sax. waaw ah, Fatou Diané. Fatou Diané Diané. ah Fatou Diané. sama xarit la ñoo bokk aussi euh, voilà et kii de Diané je pense. qui est je veux pas que moom moo nekk ministre de la femme. qui est aussi euh, apparemment une ancienne activiste des droits des femmes. Mhm. mais bon bref. donc l'idée c'est d'utiliser suba dégg nga ñëwal suba l'idée c'est d'utiliser euh, act actrices yi ak acteurs yi nga xamante ne nii ñu ngi génn ci télé hmm. pour que maximum de public puisse identifier wu pourquoi faire des courts métrages alors alors que les séries sont beaucoup plus parce que le, les séries aujourd'hui on peut dire que c'est le cinéma populaire pas que c'est pas le ah. film de Ousmane Sembène par exemple dans les lieux où on fait les projections des, des courts métrages hmm. si salle de cinéma yi si yenn institution yi wala yenn structures yi Mmh. boo fa demee tu trouves un public averti déjà qui connaît les causes et qui mais sont venus. Mais tout le monde n'a pas accès bi ñu mmh. bëgg a def. Mmh. Ah, vous allez dans des écoles. bu ñu demee école wala centre culturel régionaux. def ko projection ouverte ñëpp ñëw dugg bu ñu seetaanee film ba pare cinéma passe craie kenn du fay. bu ñu seetaanee film ba pare ñu waxtaan. pas waxtaanu man maa xam yéen a may déglu déedéet on échange. ba permettre que peut ñi nga xam ne mës nañu ragal a wax. ñu wax. Mhm. wala mës nañ ko bëgg mais xamuñu fu ñu koy wax parce que à chaque projection on met en place benn dispositif de de d' écoute. Mhm. une professionnelle qui est pour te dañ koy annoncer bu fekkee am na parce que y a des images qui sont un peu choc. Mhm. su fekkente ne am na ñoo xam ne après film bi bëgg nañu wax. nañu adressé wu ci diw bu fekkente ni am na ñoo xam ne elles se sentent plus à l'aise nañu génn salle bi y a pas de problème. donc idée bi c'est vraiment de de à ñun ñëpp ñu nekk ci même. Euh, tooga ci même toogaay bi. Mhm. parce que teguñu sax ay chaise di waxtaan ak yooyu dañuy def ay bassan lal ay ay ay coussin ak yooyu ñun ñëpp ñu toogandoo waxtaanandoo on sort un peu de tous ce qu'on a l'habitude de voir de du du moule du cinéaste euh, des grandes salles c'est un film cinéma certes mais c'est un plaidoyer. c'est un message qu'on veut qu'on veut qu'on passer et ce qu'on veut passer c'est un message boo xamante nii bëgguñu di ko wax ba pare nit muy dugg fii di génn fii moo tax dama lay woo ñu waxtaan nga wax ma nga xalaat ma wax la ma xalaat on échange là-dessus. Hmm. tournée bi bëgg nañ ko def dans les régions du Sénégal dans les centres culturels régionaux dans les écoles. et pour ça il faut les moyens il faut les moyens je sais de quoi tu parles. là c'est un film que moi j'ai <clears throat> autoproduit. Mhm. c'est-à-dire j'ai une boîte de production donc un moment je me dit ça va très difficile d'aller dans des guichets dem dugg dem génn day a <laughs> Mm-hmm. leen mm-hmm. donc j'ai tout misé là-dedans <laughs> pouvoir le faire. non je te promets. j'ai euh, tout misé là kii di salam pour ce que la fille je propose ce dit je propose une unité spéciale. pour les victimes une brigade au sein de la police où les gens sont formés spécialisés <laughs> spécialement sur ces sur ça ils n'existe pas déjà c'est qui Osama Euh, Noreyni, ah. Oussamana, ah, Ousou le jeune. <laughs> voilà. Non, ça c'est les radicales qui disent ça. Effectivement, bu ñu s'il faut ñu teg brigade nañ teg brigade mhm. parce que xëy na li jigéen mën a wax ak moroomu jigéenam. Mhm. du du nekk euh, ci ci même ci même ci beneen sens bi du demee noonu donc ñun li ñu bëgg muy man di samay nawle yi nga xamante ne ni jël nañu engagement boobu am ay njaboot di leen fi bàyyi di di tukki am ay njaboot di leen fi bàyyi di di dem di toppatoo yeneen njabooti jàmbur donc c'est pas la dama ciy profiter aussi di rendre un hommage à toutes ces militantes féministes du Sénégal ñi nga xamante ne nii wallahi li ñu toogaale bu ñu ko génne woon wax ko dana ni ñii comment elles font pour continuer à supporter ce poids. Mhm. voilà parce que dañuy def tout pour mhm. vraiment être là présente pour celles qui en ont besoin pour suñu ay ñooñ. pour que vraiment ñu arriver à suñu but ultime mooy que l'épanouissement de la femme et de la jeune fille am na solo parce que alaaji seen tournée boobu dañ ciy àndal ay panélistes moo loolu moo ci gën a am solo ñoo xam ne tey dañuy seen teg film ba pare teg ataaya teg film ba pare teg ataaya ñu échanger seen biir waxtaan mhm. donc man maa ngi ñaan sénégalais yi nga xam ne tey am nañ am nañ moyens yi donc te bëgg nañ dimbale xale yu jigéen ñi euh, bëgg nañ dimbale yenn ndaw yi nga xam ne ils sont victimes euh, de ci loolu noonu mhm. Euh, ñu ñëw accompagner li ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, ñoo ñoo taxawal lu mel ni mhm. ñu mën a def euh, tournée au niveau des des quatorze régions même pas waxuma sax yem ci quatorze régions yëpp mais mën a génn ak loolu noonu. maa ngi Mamito après elle va nous dire où est-ce qu'on pourrait la ah, joindre. loolu ñun ñoo koy bokkee ci en plus se mhm. que. Mhm, mhm. si elle a besoin de quoi que ce soit pour parler avec les Sénégalais mu jàpp ne war nañ cee mën. annonce ah ñoom Mamito euh, pour la violence faite aux femmes et aux jeunes filles. dañu tel lieu tel lieu n'hésite pas nous le dire on le fera passer ces informations. comme par exemple là suis en train de faire passer le message de celui qui qui m'a